الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين bokk jullit yi ñu ngi sant suñu boroom subhanahu wa taala boroom boobu nga xam ni moo digal jullit ñi nañuy matal seeni dikk ñu ngi seede ne kenn yeyowul ñu koy jaamu ku dul moom moo dig jullit ñooñee di matal seeni dikk ci pay yu màgg lool ca àllaaxira mooy tëkkoo ña nga xam ne ay workat lañu ci mbugal yu màgg lool ca àllaaxira ñu ngi seede ne yonent yàlla muhammad jaamam la bu mu yónni woon ci ñun yàlla na yàlla julli ci moom ak i sahaaba sahaaba yooyu nga xam ne ñoo àndoon ak moom taxaw matal dig bañ diggante ak seen boroom ba yàlla tagg leen ci alquran ñu koy jàng ba ila yawmi diin mbokk jullit suñu xutbab tey bi mi ngi jëm ci benn aaya boo xam ne suñu boroom ubbey na ko suratul maida muy saar bi nga xam ni moo mujj wàcc di daganal ak di xaraamal aaya ba ca yàlla jëkk a wax mooy yaa ayuha allazina amanu awfu bil uqud ay yéen julit ñi matal leen diggante yi ngeen diggante kóllëre yi ngeen kóllërente loolu woote la ba suñu borom woo kan la ca woo mooy jaamam yi gëm ndax mbokk matal say dig yépp ku gëm rekk moo ko man loolu moo tax ba xam leen ne day matal ab dig ca la gën a màgg ci lu doomu aadama di taxawe ci kaw suuf la pay ya ca nekk it bokk na pay ya gën a màgg mbokk bokk na ci looy xam suñu borom yàlla dara waru ko waaye warlul na ci boppam ni lépp lum dige dana ko def looloo tax jullit ñi buñ koy ñaan dañ naan ko yàlla day innaka la tuxliful miaad yow doo wuute say dig borom bi mu ne ana ko gën a matal dig ci yàlla looloo taxit yow jullit lii yàlla wax ci téeram bu tedd bi ne ku ko gëm jëfe ko àjjana may wàccuwaayam lii yàlla wax ci téeram bu tedd bi ne ku ko weddi jàdd yoon sawar mooy sa wàccuwaay du ñu dem mukk yowmal qiyaama yàlla di feeñal leneen lu safaanoo ak loolu yàlla du wuute ay digam mbokk yonent yi yàlla yónni woon bokk na lam leen tegee mat teggee mattal seen dig bokk na ñi ci gën a màgg xoolal ibrahima alayhi salaam mi yàlla ne wafa lum ma sa dig rek matal na ko ca la jiitu mooy diggante ak boroomam jalla waala yàlla santoon na ko mbir yu màgg yu yéeme bokkoon na ca gàddaayi gàddaay na bokkoon na ca dugal boppam néegub góor ca ngir xale yi dégg mooy ki jëkk a jong ci jaamu yàlla yi ba mu koy def am na juróom-ñetti fukki at gannaaw loolu suñu borom yàlla sant na ko mu jël benn doomam sànni ko ca désert ba kenn nekku fa suñu borom yàlla sant ko mu wëlbati ko demal ren di xale bi yii yépp mu daal di matal digganteem ak boroomam bala ca mujj xam ngeen ko yéen ñëpp doomam ja yonent yàlla Ismaïl suñu borom tàgg na ko ci téeréem lam ko jëkk a taggee avant muy wax julli gam doon sant njabootam mooy matal gam doon matal ay digam ma ndax gaa yi xam ngeen matal dig bu gën a màgg lam waxanteeg baayam baay bi na ko ay Ismaïl sama borom day nee na ma rendi la mu ne ko bàyyi nañ dem fa yàlla wax danga ma fekk ma bokk ci muñ ko di ànd ak baay bi ba ca Mina tëdd nangoo matal lam diggante woon loolee mbokk ku nekk ñun war caa bàyyi xel xam leen ne mbokk ñooñu di matal seen dig borom bi subhanahu wa taala tagg na leen ne ñoom day ñooy dëkk firdawsil aala ulaika humul waarisuun allazina yarisuuna al firdaws hum fiha xaalidun kon jëf ju màgg la dig ba nga xam ne moo jiitu ci dig yi mooy li nga diggante ak sa borom jalla wa ala ay mbokk julit xamal ne sa borom yàlla mi la bind indi la ci kaw suuf daa am dig bu mu digganteeg yow ca mooy jaamu leen ko ca bu leen ko bokkaaleeg dara looloo tax waa sawara buñ ñëwee bokk na lu leen yàlla di jëkk a wax ay yéen doomu aadama yi ndax du maa diggante woon ak yéen ne jaamu leen ma bu leen ma bokkaaleeg dara seytaane nax leen doon seenum noonu ba réeral leen sawara bi ngeen biñ leen doon tëkkoo mi ngi nii looloo tax yàlla ngir jullit ñi bañ a fàtte dig boobee lu mu néew néew fukki yoon ak juróom-ñaar da nga taxaw ci kanamu yàlla ne ko yàlla iyaaka na abudu wa iyaaka nastain yàlla ñun yow rek la ñuy jaamu ca yow rek la ñuy dimbini ko ca xamal ne jullit doo wax yàlla ñi ngi lay jaamu ñi ngi lay dimbini ko déedéet yàlla yow rek la ñuy jaamu yow rek la ñuy dimbini ko loolu mbokk mooy dig bi gën a màgg bu doomu aadama war a matal ci kaw suuf képp koo xam ne matal na ko lépp luy jaamu yàlla julleew ya mat na koor ya mat na zakat mat na aj ga mat na jaamu ne yàlla bañ koo bokkaaleeg dara kii day am na dig bu koy xaar ci yàlla ca mooy bu ñëwee yàlla du ko mbugal te fokk yàlla dana ko tabbal aljanna yàlla na yàlla boole ñu ca ñooñee mbokk julit suñu borom yàlla gannaaw loolu am na ay digg yu mu doxale ci diggante ay jaam yi bokk na responsabilité bu rëy mooy ñi nga xam ne ñooy njiit ñu yàlla tànn ñu jiite ay nit président de la république ak képp ku yor pouvoir gannaawam xamal ne loolee mbokk ab digg la boo xamee ne nii tey jii masalan soo ñëwoon suñu réew yi da ngay campagne suñ ma falee danaa taxawe nangam taxawe nangam taxawe nangam mbokk dig yooyee lépp lu dul lu xaraam buñ la falee da nga caa war a taxaw ca xam ne la gën a màgg ci loolu lépp mooy ña nga jiite nga teete leen ci lépp loo xam ne nii lu yàlla faratal la nga taxaw ci bañ jëfe ko lépp lu xaraam nga taxaw bañ bàyyi ko loolu mooy njëlbeen responsabilité président de la république ak képp koo xam ne yor na pouvoir ci gannaawam ca ngalawaay xam leen ne yowmal qiyaama yàlla da leen taxawal laaj leen loolu waaye mboolem ñi topp ci gannaaw président wala topp ci gannaaw bépp kilifa sa warugar mooy kilifa boobee it nga topp ko bañ koo wor tànk mi ngi lay digal loo xam ne nii xaraamul amaa kuy diglu lu xaraam kooku kenn du ko topp waaye gannaaw loolu mbokk julit xam leen ni lii ñuy diggante suñu suñu biir loolee yemul suñu diggante de yéen ñee taxaw di ubbi la nga xamee ne nii mooy ab sëy xam leen ne mooy dig bi gën a màgg bu doomu aadama yi di diggante ci seen biir ndax borom bi yemul ci rek tudd ko ab dig waaye da koo tudde misaaqan galiza wa axazna minkum misaaqan galiza mooy soxna yi de jël nañ ci yéen benn dig boo xam ne nii bu dëgër la looloo tax ba yow mi nga xam ne dangaa ñëw ñu wóolu la di la jox doomu julit bu jigéen nga la way ragalal yàlla ca la nga xamee ni nii moom nga diggante yépp nga def ko ca bokk na ci diggante yooyee la borom bi wax ne wa anchiruhunna bil maaruf jàpp leen leen ci njëkk la nga xam ne mooy yor soxna yor bu rafet ci Dakar nga la way boo takkee doomu jàmbur ab digg la boo xam ne boo ko waxul it loolee war nga koo matal nañu yore soxna ca Paris ak nañu yore soxna ca Fuuta yooyu yépp bokkul waaye milieu bu nekk heure boo fa yoree jigéen xoolal lay maaruuf nga jëfandikoo ko ak moom loolee dig la boo war a matal amma yow jigéen it ragalal sa borom ci ne yàlla dalaa féetale ci kii nga xam ne mooy sa borom kër da nga koo war a déggal topp ko tànk diggalu la lu xaraam suñu borom yàlla mu ne góor ñi am nañu àq ci jigéen ñi jigéen ñi am àq ci góor ñi ku nekk ci ñoom daa war a góorgóorlu balaa xalaat ay droit yi nga xam ne dañ ma koo yoral la mu war a jëkk a ittewoo mooy man devoir bi ma yoral sama moroom na doon ko góor ki la wala na doon ko jigéen ki la loolee nga la way ñu bàyyi ko xel ca ñàkk a matal loolee bokk na ci bakkaar yi gën a grave yoo xam ne day xaar doomu aadama yawmal qiyaama nañu góorgóorlu matal suñuy dikk képp koo xam ne dañoo diggante ak moom rawatina suñu njaboot ngalawaay yow bàyyi loo mënul bu ko diggaate lépp loolu dig nag taxaw ci matal ko loolu mooy tax nga jàngal leen ñoom it ñuy matal ay dig xale bu ndaw bi gën a tuuti sax bu ko wax mu ko kaay ma jox la demal ñëw ma neexal la ba pare mu ñëw nga war ko déedéet jàngal leen ak ak matal dégg jàngal leen li nga xam ne mooy maandute waaye gannaaw loolu mbokk jullit tubaab yi dañ naan la promesse est une dette képp koo xam ne dig nga ko ne dinaa la may nangam dinaa la defal nangam dinaa la seet si dinaa la nangam mbokk loolee yaa ko wax suñu borom yàlla mun a matal ko kabura maqtan inda allahi an taqulu ma la tafalun màgg na ci yàlla yow julit ngay wax loo xam ne nii dangaa wëlbati ko sànni ko fële bañ koo def déedéet mbokk julit matalal loolee bu dee ak maye def ko bu dee digge def ko bu dee lu mu mën a doon defal ko te xam ne loolu yaa ngi koy diggante ak waa ji waaye yaa ngi koy diggante ak sa borom ngal la waaye yéen ñi nga xam ne da ngeen di jaayante ku nekk ci moroomam dig na ci maaruuf man kat lii ma lay jaay nangam la loolee ngal la waaye matal ko bu ko ca nax bu ko ca wor yow ma war a fay bis ba nga waree fay ngal la waaye matal ko bu ko nax bu ko wor loolee ñu bàyyi ci xel ay jullit heure bu ñu àndee ci société société ba lu mu mën a doon bitig bu ndaw laam usine laam lu mu mën a doon ngal la waaye contrat ba ngeen boole ku nekk ci yéen na ko matal yonent bi aleyhi salaatu wasalaam nee na suñu borom yàlla day nee na man ñaar ñu ànd danaa ñëw ñetteel leen fii ak kenn ki warul moroomam loolu it muy wane ne bu doon junnee ànd it yàlla bokk ci fii ak kenn warul amma bu ñu waree rek yàlla bàyyi leen ak seen mbir su ko defee mbokk loolu du barkeel bokk na loo xam ne nii lu metti la mooy tey jii ak a jafe doomu aadama mën a créer benn entreprise na doon loolee grossiste la na doon loolee ab usine la na doon loolee ab atelier la am ñu mu wóolu jox leen ko ñu ànd liggéey ak a jafe suñ jamonoy tey jii mbokk nag loolu nga la way yéen ñi nga xam ne ay jullit leen fexe leen ba bu leen bokk ci loolu abadan na ngeen wóolante seen biir jàppalante ci seen biir waaye gannaaw société yi képp koo xam ne prestataire nga employé nga ouvrier nga lu mu mën a doon ki nga xam ne dalaa woo ne la kat liggéey sàngam laa la dénk loolee ngal la waaye la ngeen ci waxante matal ko suñu borom mu ne wala zinahum li amaanatihim wa ahdihim raun yow dañ laa embauché fenn huit heures nga war a xëy quatre heures nga war a wàcc ngal la waay bul sàcc heure bi la nga war a liggéey xam nga ko ngal la waay bu ci njuuj njaaj yow mi nga xam ne yor si liggéeyu bopp engagé ab bâtiment engagé ab ab lal engagé lu mu mën a doon ci oto ba réparé yi yépp ay dig la yoo xamee ni nii suñu borom yàlla subhanahu wa taala dala koy laaj yowmal qiyaama heure boo xamee ne sa yéene sell na ci matal liggéey bi rafetal ko fokk yàlla jàppale la heure boo jiitalee ay tappale fokk yàlla indil la ay lor ca it mën ngaa doon loo xam ne nii sa alal danga cay am du barkeel mbokk gannaaw loolu nañu xam ne diine lislaam mooy diinay matal ay dig képp koo xam ne liggéeyloo nga ko ngal la way góor góorlul fay ko la nga koy liggéeyloo yonent bi alayhi salaam nee na day am na ñoo xam ne yowmal qiyaama yàlla la ñuy dàgg santeel te mooy ki jël a jaamu bi yàlla liggéeyloo ko lam ko liggéeyal mu fay ko mu mu matal ko sëkk ba pare mu koy dawloo bañ koo fay nee ni ki yowmal qiyaama yàlla lay dàggasanteel yàlla na yàlla musul ñu ci dàggasanteeg yàlla mbokk suñu diine ji mooy diine yi matal ay dig même bu doon ci yéeféere yahud yi xam nga lu ñu doon wax laysa alayna fi l ummiyina sabil yahud nee na moom ku dul yahud loo ko def dagan na boo reyee dagan na boo lekk alalam dagan na suñu borom mu ne déedéet waxuñu dëgg balaa man awfa bi ahdihi wattaqa fa inna allahu yuhibbul muttaqin ku matal ab digam ragal yàlla yàlla dafa bëgg ñu mel noonu même booy jëflante ak yéeféer ngal la waay na gis ci yow ak dëggu ak matal ab dig waaye xoolal tey yéeféer bi jëflanteeg benn julit mu war ko mu jëflanteeg beneen julit mu war ko kookee ndax dana xemem dugg ci lislaam danaan julit ñi ay truand lañu looloo tax xattaa julit buy jëflanteeg yéeféer day matal dig ba yonent bi aleyhi salaatu wasalaam ne bépp chrétien boo xam ne daa nekk ci biir société l'islam islam may ko kóolute muy dund ak ñun bépp julit bu ko rey xeetu àddina du ko xeeñ xeetu àddina du ko xeeñ man qatala muahadan lam yarih raihatal janna loolee mbokk l'islam loolu lay woote matal ay dikk xatta bu doonte ne ay yéeféer la mbokk diine l'islam mooy diine nii matal dikk borom bi subhanahu wa taala mu ne ngal la waaye xam leen ne matal leen seen dig dig yi daañ leen ko laaj yowmal qiyaama inna al ahda kaana mas'uula heure boo ñëwee yowmal qiyaama koo mas a taxawal dig ko koo mas a taxawal su ngeen teg moom contrat koo mas a taxawal ngeen wax lu mu mën a doon suñu borom yàlla dana la taxawaatal yowmal qiyaama ne la ay jaam diw bi sangam day yaa taxawoon wax nangam suñu nangam tëral nangam loolee naka nga ko jëfe loolee ku ne war cee bàyyi xel bokk na ci mandarga naafiq mooy faussé ay rendez-vous bokk na mandarga naafiq mooy war ay dig yonent bi aleyhi salaam nee na mandargay naafiq de mooy koo xam ne buñ ko wóoloo mu wor koo xam ne buy wax day fen heure bu diggantee faussé heure boo xam ne ma ngay dàggasante génnuk topp mu ne ko mel nii day naafiq bu mat sëkk la ku ci am benn jukko am na jukko naafiq ba baa mu koy bàyyi loolee mbokk ñu bàyyi xel bu baax rawatina nag yow mi nga xam ne dangaa dem ci doomu aadama bi jullit la yéeféer daa di koy leb bor daa di waxanteeg moom ne ko su ma amee danaa la fay wala bis sàngam danaa la fay mu wóolu la jël alal jox la gàllawaay bul wax li Sénégalais yi di wax bor du rey kenn na am bor du rey kenn waaye nag mën naa yàq si diine de yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba lislaam di doog a door képp ku mosaan indi pour mu jullee ko dana laaj ndax bàyyi na fi ay bor buñ ne ko waaw mu ne ndax bàyyi na lu lu ko mën a fay buñ ne koy waaw mu ne jël leen ngeen fay bor yi daal di koy jullee amma buñ ne koo déedéet mu ne jullee leen seen néew loolu lépp da ko doon def ngir jàjj ñuy dund ñu moytu di faussé la nga xam ne mooy ay bor heure boo lebee boru jàmbur ngal la way foo ko amee santal yàlla ndax bala yàlla nattu da ngaa ñàkkoon ndax ki am moom amul raison dem di leb kon ñàkk nga dem leb yàlla baaxale am nga santal yàlla dem fay bu dee amagoo ci dig ba ñëw na na nga sole woon sa dàll dellul ba ca waaja nga ne ko ah maa la waxoon de bi sangam danaa la fay waaye nag yàlla dogal na la ma doon yaakaar jotuguma ci waaye insha allah su ma ko jotee dinaa ko indi lii mbokk ay mbir la yoo xam ne ku ne ci ñun war na cee góorgóorlu bàyyi ci xel mbokk nañu bàyyi xel ci la nga xamee ni nii wax ju ñaaw la mooy bu ñu gisee doomu aadama bu fonk ay rendez-vous ñu naan diw dey tubaab la déedéet mbokk jullit jullit yow yay jullit amul tey ci kaw suuf kenn koo xam ne am na juróomi rendez-vous ku dul jullit yow rek yaa am juróomi rendez-vous ak sa borom jalla waala su doon góor nga sant nañ la juróomi yoon par bis nga dem ca dal ca ca jàkka ja ngiree dajeeg say mbokk jullit naka noonu itamit lépp loo xam ne diggante nga ko mooy danaa ñëw bi sangam gàllawaay bi sangam ñëwal su dee ñëwuloo xoolal ngant ba nga xam ne valable na nga leeral ko danaa ñëw heure sangam tey jii ñun ñëpp bokk nañ xam loolu mooy heure Sénégal mooy ki ñëw na la ne dix heures lu bari dañ naan wax dix heures u Sénégal la am dix heures u l'islam lu bari ci Sénégalais yi dix heures mooy une heure mbokk loolee njuumte munta paase loolu ab jullit day respecté ay rendez-vous am yé yaakaar koo def ca suñu borom yàlla dong nga tax mu koy def lii day heure boo xamee ne nii nekk na sa yéene yàlla dana barkeel say jëf looloo tax Ali ibn Abi Talib ba ko waa ji ñëwee di ko tagg na ko yow day yaay koo xam ne xamuñu ci yow ne loo digg da nga ko def ali na ko déedéet du lu ma digge def ko de waaye lu ma digge moom fas yéene naa koo def galla waaye loolu jàpp ko sa sa sa sa sa gànnaay yow ouvrier bi yow kiy liggéeyloo yow kiy joxe rendez-vous yow kiy yor njaboot yow kiy def lu mën a doon lépp loo xam ne yaa ngi koy génne sa làmmiñ bi na fekk dëggu na sa xol ne lii ngay wax moom lii nga fas yéene def gannaaw ba nga ne incha allah su sottee ci yàlla la jóge su sotti wulit yow la nga waroon a def def nga ko amma la nga xamee ni nii moom mooy lal ay ay ay ay ay wor ngiree teqalikoo ka ngay teqalikoo loolee mbokk ci bakkaar yi gën a màgg ci bakkaar yi gën a grave la bokk ku nekk ci ñun war a góorgóorlu bàyyi ci xel su ko defee mbokk ñi ngi ñaan suñu borom yàlla subhanahu wa taala yal na yàlla boole ñu ci jaamam yi nga xam ne tagg na leen ne dañuy matal seeni dig te ñu mel noonu day buñ ñëwee firdawsi ala mooy nekk la nga xam ne mooy seen wàccuwaay ñi ngi yóbbante it jigéen ñi ci xam leen ne jàng xam-xam day wareef la ci góor wareef la ci jigéen te mooy jigéen ñi ñu ngi commencé waat seen jàng mi altine bii di ñëw altine bu nekk ak alxames bu nekk ñu ngi fiy daje di jàng laaju ñu leen dara su ko defee yow mi yor soxna sa kër ga xam nga ne kii kat moom jàngul diineem wax ko mu dem ca jàkka ju jàngi diineem ay moroomi jigéenam ñoo ko fiy jàngal diggante ci tàkkusaan jëm timis ca laaju ñu leen ci dara ñu ngi ñaan ña koy taxawee yal na yàlla fay leen yal na yàlla xamal ñu suñu diine ca wërsëgal ñuy dund suñu diine yal na yàlla may ñu jàmmi àdduna may ñu jàmmi àllaaxira yal na yàlla subhaanahu wa taala wërsëgal ñu lépp lu ñuy wax mu doon wax ju dëggu jóge ci suñu biiri xol yal na ñu yàlla musal ci wor ak fen ak njuuj njaaj yal na ñu yàlla musal ci lépp loo xam ne day tax ñu mu mu jural ñu merum yàlla wala jural ñu merum jaamu yàlla yu baax yi allahuma rabbana atina fi dunya hasana وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة ما يصفون وسلام على المرسلين